mbégte jàkkaarloon ak yéen xam ngeen ne ñu ngi CICES ci programme mu Mamy Events ngeen gis muy def euh, lancement bi nga xam ne programme bi nu jëm mbokk yi nag ki nu jàkkaarlool duñ leen ko présenté soxna Batoor boroom série bu rëy boobu sama jigéen ci loone salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñi may seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. di kontaan tey daje ak yéen fii nga xam ne nii moom moo di CICES mm-hmm. fay naa lu bare bare bala ma lay laaj dara li nga sañsa laa lay laaj lan la nga nga décortiquer ma ko gars yi jëlal leen ma sañsa bi <laughs> waaw comme ni ñu ko waxee rek Mamy Evans euh, blanc rose la wootee rose blanc la wootee ñu def rose blanc rek ñëw mm-hmm. wuyu ko. Mm-hmm. sàcc suñu yëf rek xam nga ñu toog des fois ay ñu ñëw ci programme bi muy lansement bi lan nga nu mën a wax ci li Mamy woote. Mamy dafa nekk euh, xale. dafa nekk xale nekk jigéen gis ay moroom jigéenam di daan doole mm-hmm. mu ne pourquoi pas mënuñu def benn foire ñu organiser foire. jigéen bu ci nekk ñëw gis sa bopp ci li nga xam ne nii moom moo di foire bi loolu moo waral tey ñuy def lancement foire bi bien vrai que ne date yi bari woon jàppoon nañ ko jàppoon nañ ko mais dañoo bëggoon rek mu baax bëgg loo xam ne buñ ko wanee Sénégalais dinañ ne kat xale yi am nañ ambition te ku mel ni Mamy Evans dama ne jigéen la boo xam ne nii war nañ ko jàppale jigéen la boo xam ne war nañ ko doole ci li mu nekk ndax boot sa ay morom yombul mais mu ngi jóg di daanandoo ak ñun ba tey yàlla dogal ñu def événement bi macha allah gis ngeen réussite totale la ci am macha allah nit ñi ñëw nañ presse bi ñëw nañ ñëpp ñëw nañ macha allah di waaj nag nee naa jour bu mag bi mooy foire bi mm-hmm. nee naa le 24 le 25 ak le 26 incha allah neexee yàlla.